Cheikh Bara Cheikh Bara maa ngi lay ziar noo maa koy noo maa koy fay moom maa koy fay noo maa koy fay Cheikh Bara bàyyi maa koy fay noo maa koy fay ndax maa koy fay waaw ñaata photo la non ancien patriote le patriote invisible waaw le patriote invisible mbaa yaa ngi ci jàmm rek loolu lii moom maa koy fay moom maa koy barkeelu hmm. euh, wal maanaam wal fajiri dañoo tijji seen ñi dañoo tijji paar yi quoi gars yi di jëm action hmm. mu ne noo wal fu wut tijji paar yi quoi Euh, parce que ñoo a tijji action yi. wax dëgg yàlla par yi pour gars yi jënd action quoi. moom jënd naa. waaw nag moom. man jënd naa la nga jënd action yow. incha allahu rabi parce que moom vraiment. dafa am lu am solo. loo xam ne àdduna dafa jógee di daw xel te ñi xam-xam ñoo ko teel a gis. dëgg la muy digital. digital waaw loolu nag. yow da nga see jiitu. wallaay ndeysaan loo xamante ne. jàpp naa ne soxla wul soxlawul tey dina la soxla suba. incha allahu rabi am na lu nga xam ne ku ko wanewul wul koo ko mën a wane am na ñu ko dul gis. wallaay ndeysaan lii moonu boppam la. dëgg la donc li ci am solo rek mooy def ci lu responsable. wallaay ndeysaan te li ma la wax rek yow mooy mm-hmm. ñaa. Mm-hmm. yow bul politique. wallaay ndeysaan voilà yore nga lu nga xam ne xolal. arme la. arme la bul politique. fu mm-hmm. ñëw rek xolal nga ànd ak moom te xam naa ne. cinquante ans yi ñun ak yow la. incha allahu rabi noonu lay demee <laughs> jërëjëf sëñ Bara kontaan naa. devant les yeux de Junior mon ami Junior maa eh, c'est la sortie du PM c'est la sortie du PM yaa ñu dem waaw Ndiaye xool ma la sortie du PM il est en avec Serigne en Serigne Mbacke Balla sëñ Jaraw wallaay wallaay mais ma arabe de valeur mais ça c'est la presse la presse du PM la presse la presse wallaay xamal li xamal li mayum yàlla la. macha allah ndeysaan. mais lim ça c'est limousine. Eh, xamal li mayum yàlla la. ndeysaan. oh. yal na ko yàlla may méngaleeg sagoom incha allahu rabbi. macha allah. xamal li mayum yàlla la. azura ah. allez allez allez bu gaaw allez bu gaaw allez bu gaaw. Serigne Cheikh Thioro Mbacke moo moo féete moo féete na ndeysaan moo ànd ak moom ci ginnaaw Mbacke bala Serigne Cheikh Thioro ndeysaan Mbacke ñu ngi lay siyaar bu baax a baax sëñ Moussa Mbacke ñu Mbacke ñu ngi lay siyaar bu baax a baax sant nañ wér wér alhamdulilah baarikal la wallaay ndeysaan jërëjëf incha allah incha allah ngañ sëy jege nga nag sëy ngañ jege nga nag ngañ jege nga nag ngañ jege nga nag sëy jege nga nag mais père Djibi waay neex a fekk New York Djibi ça c'est le protocole de Ousmane dans quelques minutes incha allah rabi l'arrivée du PM fii ci kër Sëñ Touba kër gu mag paix mooy ñoo noonu jógee na ci sëñ euh, sëñ Sidi bu sëñ Abdoulaat gannaaw ba mu jógee ci xalifa général bi mu ngi nii war a siyaas nag tey ki yor kàddu murit ñu naan ko Serigne Bassirou Abdou Khadre moom la war a siyaas nii en direct sur le Snapchat des méga événements devant la sécurité de la primature ñaa xarañ loo aka from from our music fii ci Burga Serigne Touba l'arrivée di yegg ci bu ñaa xarañ loo devant les yeux des juniors ñu ngi lay ziar de waaw delloo ziar waaw PM moo ngi noonu nag yegsi na PM moo ngi noonu yegsi na nag ndeysaan ndeysaan PM a ngi noonu PM a ngi noonu yegsi na ndeysaan jaajëf maa ngi lay saa gën a gisee naka liggéey bi waaye yaa ngi ci jàmm Azoura ah, ah. ma ngeen ko suivre nii ci page Azoura yi <laughs> ñoo far ngeen nuuru nuuru protocole bi nga ko colonel bi ndeysaan allah وزنا